il a ne professeur bi dafa juumaat encore ndax d'abord faut comparer Il ñaari élection yu bokkul Beaucoup également ci organe bi leen di contrôler bii nii organe bi contrôler ministère de l'intérieur D'où le conseil constitutionnel conseil constitutionnel nangu ne peut-être que même bu Malick Gakou ëppalee dana vérifier lépp parce que loolu la defoon bii le ministre bi bi article R76 mayee mu organiser dafa def un arrêté publié dans le journal officiel du jeudi 5 mai article 6 bi nga xam ne bii def na arrêté mais bala muy contrôler aussi bu fekkente ne ki nga xamee ni kii dafa déposé dafa ëpp lépp li ci ëpp duñ ko considérer parce que buñ fàtte ne bu ñuy déposé parrainage dañ koy numéroté numéro 1 ba numéro cinquante ak jëm kaw donc moom li muy jël rek mooy 55000 cinq mille maanaam juróom fukki junni ak juróom ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar rek la yem lu ci munta ëppit du ko sax laal loolu moom mooy disposition yi nga xam ne yi moom mu am même bu fekkoon tey yi benn bi dafa ëpp loon benn bu mu déposé benn bi duñ ko laal ndax texte bi ko loolu texte bi moo maywul sax ñu laal ko dafa wuute ak li professeur Ngouda Mboup di wax parce que euh, conseil constitutionnel mënoon na sax d'ailleurs boo xoolee arrêté bi mu def mënoon na ca deux mille dix ne sax du examiner parrainage Malick Gakou parce que dafa ëppale woon Malick Gakou soixante sept mille parrain la woon mais malgré cela ba ñu ko vérifié amoon na sept mille et quelques rejets pour doublon ñu may ko mu indiwaat ko bi mu ko indiwaatee mu amaat ay doublon ñu ne ko nag ñaareel doublon bi moom ñaareel bi yoon bi permettre nga indiwaat ko te loolu aussi mi ngi ci article R soixante vraiment euh, professeur dafa jaawale ñaari ñaari kii yi bokkuñ